sa parce que da nga suufe rek da ngaa suufe nit ku suufe rek moy moy moy suufeel ko yalla magal waye ku yalla magal deug deug jappale ko ci lolu da nga nangou ne man jami yalla la te li yalla ko def te ko kon nak ñu ngi gërëm màkki màkki merewul la lo deug parce que nit ñi dañuy wax rek waye ñu waxu lool dañ ne ñu lay ñaanal yalla yalla la yalla yok tawfiq yalla na la tawfiq fo meuna dem pour senegal la nga xëc indi senegal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 ci suñu relation ak moom ak relation ak ñëpp ci àddina bi nangu nañ ko d'accord nañ ci nu mu doxalee rek ñu ngi koy ñaanal yàlla mu am tawfiq pour Sénégal mu am tawfiq pour Sénégal mu dimbale Sénégal mu génne Sénégal ci lii mu nekk mu génne Sénégal ci ñàkk yo laaj yuñ ko dem nga ngénte dem nga laajuñ ko dañ koy laaj marché bi fu mu toll dañ koy laaj tali yi nu mel dañ koy laaj économie bi fu mu toll loolu lañ koy laaj loolu lañ koy kenn ko ko xisaab kenn ci bokkul ci programme te loolu yëpp nag dafay aajo ñun ñëpp nga xam ne ñoo bokk réew mi Sénégal réew mu bëri réewu wax la ñëpp a ngi ngalal ngalal rajo physio bi comme socio ah yi boo ubbee ngalalalal ngalalalal nga te kenn waxul dara da ngay wax rek pour ne ngi nii te waxoo dara ah nañ jéem a góorgóorluwaat ñun ñëpp ñu delluwaat ñu delluwaat ci suñuy tànki ay maam ak ndax ñu mën a liggéey liggéey boo xam ne dina mun a lii ñu donn te lu rëy la buñ ko mënta doolu itam bu mu wàññee ko ci suñu loxo te yàlla bu ko wàññi ci suñu loxo